bëgg Public TV waaw waaw waay. agsi leen nag ci Public SN TV. bienvenue vous êtes sur euh, Public SN TV. am internet Public TV yëpp. ci mboolem téléspectateur yi Public SN. rawatina ñi nga xam ne ñu ngi suivre Public TV. deuxième mandat de 5 ans. na def. ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné wu fi dal di bës.

procès bi nga xamoon ni que Mame dafa defar appel pour njiitu Pastef boobu di Ousmane Sonko nga xam dafa xeeb 200 millions yi nga xam ne lañ ko jox ndàmpaay dafa bëgg a saisir kër bi nga xamoon la la njiitu Pastef yi daal di yor manda sama cameraman bu xarañ bi pour ñu saytu yooyu aca Maodo ñu daal tonton baal ma nga fàttali ma tur bi nga wax ma fan lañ la fekk ak ci looy man bala musa Sarr laa tudd ne ma fekk fii côté man nak livreur la waaw mi livré ko livré nga léegi si sa wàllum liggéey des fois doo ci am ay jafe-jafe waaw man parce que livreur yaangoo la si jafe-jafe dinaa ko cam am yu bëri mais dañu xam ne moo liggéey bi ñu ànd fois nga war a livrer nit nga ñëw ba ci moom mu yëg fu sori wax ko na ko instant bi sama motif fii wóorul pour nga jëm wàcc mu ne déedéet après mu jéem a nekk indi ay plaignant indi coolu nekk tout ça des fois nga ñëw tamit encore nit ki ñëw ne amul weccet nga nar a jël doomu di wéccan ngeen nekk affaire yu bëri ngeen ci am problème tout aussi nga jël benn commande par yaa nga boo ne dem ba départ ñëw ba ci moom moom benn si sax mu annulé commande bi nga nar a delloo à moo liggéey bi ñu ànd des fois dañ ci si jànkonteel yi nga xamoo ne que ni saa yi soo ko nga am lenn la métti ba da ngay mujjee découragé ci sa liggéey. waaw loolu fu may dalee parfois euh, dinaay bëri nag. problème yi may dal yoo xamante ni damay toog benn instant damay dem ba bëgg a découragé da ngay dem euh, waa ji war la fay xaalis léegi xaalis bi nga war a fay exactement du la ko jox da ngay dégg mi ne lii moo nekkoon ci commande bi man damaa man fekk après euh, bu nekkee yàngu la su ma defee directement validation damay bëgg a recevoir beneen commande directement quoi léegi du ma ko mën exactement moom mu wax lang ci beneen commande boo xam ne noonu prix bi loolu te exactement léegi du ma a yenn preuve yoo xam ne mooy loolu loolu tamit damay faral di métti trop parce que boo xoolee métti na trop nga xam toog sa toog sa nga dem jël ni ki euh, expéditeur bi jël ko foofu dem yóbbu ko si destinataire dem dafa métti te jamono neexul umpule woon ñoo ñoo ngi waaj li xam ne moo di korité te kii di nga xam ne moo di Mame Mbaye Niang dafa defar rappel pour njiitu Pastef foofu di Ousmane Sonko pour mu ñëwaat wuy ji ndax dafa xeeb 200 millions yi nga xam ne moom lañ ko jox yan kàddu nga ci saan nañu wuyu si Ousmane Sonko moom wax dëgg yàlla heure suñu ko woowee nañu wuyu si parce que man je ne suis pas avec Ousmane Sonko parce que je déteste encore la la la façon dont qu'il qu'elle se manifeste quoi qu'il se manifeste du moins parce que man je ne comprends pas sa situation parce que yow mën nga wax ne exactement que ni da ngaa war a yore mi chaque instant ngay def ay truc yoo xamante ni instant day day day loo xamante ni tey jii mag xel du du du kii quoi chaque instant problème di bëri bu problème yi pare doo yow doo calmer problème au lieu nga jéem a calmer problème carrément pour apaiser les choses mais tu vas essayer encore euh, gën koy gën koy gën koy yokk exactement léegi ndaw yi nga xamante dañuy gis loolu xeex di bëri kenn dootul ragati ragalati man déjà instant bi lu ma gis daal mooy yoon à chaque instant bu wootee ñu dem wuyu ji exactement ñu régler les choses une si réew bi di xeex wala tout ça affaire yi carrément loolu galsen bi doxalul ko quoi suma ma sañoon daal na wuy ji mais tamine bu wuy ji mom bu nek carrément bëgg na jàmmam na calme yi nga xamanteni ne ñoo nekk ci mom na len carrément bay len mu wuy ji tam ci jamm ñëw ci jamm bu nek wul na bopam lol la japp quoi le 17 avril la wara wuy ji te neena na bi ñuy xeex kep ku nga xamone mënul xeex lu ñuy xeex na dem tok ñom dañuy xeex wa man de dana am tok man l'essentiel nañ biñu ñu yàqal liggéey man na xëy am lu mu dugal sama poste quoi man liggéey rek moom ma ñor anduma kenn ki nga xamanteni mo nek ci deug rek la andal man noonu laay dundee quoi sama kàddu mujj mooy que di ñaan ñaanal yàlla Sénégal am jàmm eh, képp koo xamante ni mën nga def pour Sénégal am jàmm nga def ko képp koo xamante ni carrément saa soo jógee ay am ngir yàlla dal tok sa kër ñu ñaan yàlla yàlla may ñu koor gi ñuy koor si jàmm génn si jàmm korite si jàmm yàlla wàcc fi jàmm dal loolu laay ñaan xaalis bi di gën di ñëw daal man dama ko bëgg d' accord yàlla na koppar bi gën dugg xaalis bi gën dugg sëñ bi ñong lay jaajeufal. Wa man ma ngi tuddu As Liberté 6 wa. Mm-hmm. parce que njiitu fi bi Ousmane Sonko dafa war a dem wuyu ji le 17 avril procès moom ak Mame Mbaye Niang dafa def rappel léegi ñu bëggoon xam yan mooy sa xalaat ci waaw loolu de sama xalaat mooy maanaam euh, waa nguur gi dañoo dañoo singili Ousmane Sonko rek waaye procès boo xamante ni atte nañ ko ba pare ah boroom daal di posté bindi na moom ci àtte bi setal nañ ko donc foofu la waroon a jeexal bu fekkoon bëgg nañ jàmm waaw ñoom nag liñ jublu mooy xolal bañ Ousmane Sonko bokk ci élection yi te loolu mënul nekk ñun duñ ko seetaan waaw Macky Sall nag bëgg dafa bëggee jàmm si réew mi day bàyyi ñëpp bokk kum neex bokk ñun ñu tànn kuñ neex ñu fal ko waaw mais lan moo tax njiitu Pastef képp kum jotee rek ngeen wax ki nga xam ne moo di président Macky ngeen joxoon ko baaraamu tuuma

moo yor seen stabilité réew mais Mame Mbaye Niang dafa xeeb li nga xam ne moo di deux millions yu ñu ko jox ndàmpaay dafa bëgg a saisir këru ki nga xam ne mooy njiitu Pastef di Ousmane Sonko. mais Mame Mbaye Niang loolu tegu ko fenn Mame Mbaye Niang si boppam moo moo tuité moom daan ne moom kontaan na si décision bi mu wëlbatikuwaat def appel ah bëgg ñu jugé waat affaire bi léegi moom loolu lan la ci jublu du moom du moom euh, dañ ne da nga kaa ah juge bi ne ko. Ousmane Sonko moo la tooñ euh, ñun euh, ñun ndàmp ko waaw mais lu mu bëggati léegi. deux mois sursis ak deux cent millions yi daf ko xeeb. waaw mais diffamation yow man man mësuma gis diffamation xoolal ñu lay condamné ay euh, ay amende dix mille deux cent millions maa ngi ko doo gis man maa ngi doo gis loolu deux cent millions. léegi luy sa dernier. li ma dernier moom maanaam Macky Sall. ya gannaaw yàlla ban ko falee def na douze ans ci bopp réew bi li ko di euh, li ko fi dese ngir yàlla yonent bi nañ bàyyi jàmm suñu réew mi te bañ a def troisième manda organiser élection ñëpp bokk ñu tànn ku ñu neex jox suñu réew mi loolu daal laa koy ñaan. d'accord ñoo ngi lay jaajëfal baal ma fàttali ñu ngi la fekk fii sa bërëb liggéeykaay ñu bëggoon nga wax askan bi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan ci lan ngay yëngu. waaw ñun ñu ngi yëngu si fi ngeen di fekk ni mooy comme pavage yi si la ñuy yëngu ay jeunes entrepreneur lañ quoi waaw mais pavage mooy moom lañ gën a moo gën a nekk suñu domaine quoi waaw donc dañuy yëngu si leneen depuis deux mille dix huit ba tey maa ngi si ah depuis deux mille dix huit ba tey ñu ngi si yëngu. yan problème nga si jànkonteel ci liggéey. waaw liggéey bi moom lu ne nga koy gis parce que tamit terrain bi des fois da ngay ñëw mu métti trop gisoo da ngaa fekk gars yi ñu ngi décapé des fois tamit nga ñëw fekk terrain bi neex sans départ daal mais affaire du góor la rek waaw parce que tamit nit moom yaakaar naa ne boo juddee doon góor rek dara warula lu dul liggéey quoi waaw te tey jii tamit yàlla mu ngi si suturaal quoi ñu ngi si sant yàlla bu baax waaw parce que tamit ñun la lañ xam quoi xamuñ leneen waaw waaw te tamit mu doon lu nga xamante ne tamit dañ ko bëgg quoi waaw loolu war ne fi di liggéey ma tey jii quoi oui. sëgg bi ngeen di sëgg muy jàpp seen dënn bi du leen andi ay problème ëllëg boo nekkee mag. non sëgg bi métti na méttiwul tamit xam ay xale lañ tamit ñu tamit ñaanu yàlla maanaam euh, dee si lii quoi xam maanaam passe la rek nekkul loo xamante ni si dañuy ñaan yàlla ne rek di sëgg di sëgg non non waaw parce tamit. dañuy ñaan yàlla yéeg ñeneen ñëwaat ñeneen ñoon tamit bu ñu ñëwaatee ñeneen yéeg ñoom ñamit ñëwaat loolu lañ loolu loolu mooy loolu moo si lu gën quoi mais bu fekkee ne yow yaay sëgg di di dem rek donc kenn ñaanu yàlla ne si métier boobu rek di sëgg rek di dem quoi waaw mais métti na moom vraiment mais tamit affaire de góor la parce que tamit bëgguñ tamit dugg di ñaan kenn wala nangam di di jël loo xamante ni alalu jàmbur la quoi looloo waral ñu dajoo fii di liggéey daan doole lu ñu am yóbbu kër ga quoi loolu la fa demee. bañ gàcce da ngay bañ Euh, réew mi instant yi langue politique bi dafa potoxo ndax ki nga xamne moy njitu passif Ousmane Sonko dafa wara dem wuyu ji le 17 avril procès mom ak Mame Niang rappel ndax Mame Niang dafa xeb li nga xamne ne di 200 millions yuñ ko jox te dafa bëgg jël li nga xamne moy keuru Ousmane Sonko lan moy sax wa sama xalaat ci lool moy réew mi daal yalla fi yalla def jamm wa parce que tamit euh, war nañu xol nu mu gën rek ñu défé ko lool parce que tamit amna lo xamne xamuñu ko ci réew mi waaw kon bu bëggee ñëw ràq réew mi rek dañu xoolaat taxawaay xoolaat jëfin bi waaw xool lu ñuy doxalee moo gën a rafet quoi parce que Sénégal ñu ñëpp ko bokk waaw ñëpp ko bokk nu mu gën a naayisee rek lañ ko xoolee ñëpp ne si jàmm waaw man daal dëkk bi jàmm laa fi ñaan yàlla na yàlla def jàmm waaw yàlla defal ñëpp jàmm waaw waaw sama dernier mooy waaw di ñaan yàlla yàlla jàpp ñu si li nga xamante ni si lañ liggéey waaw si woo ñi nga si ñoom ay autorité lañ waaw lu ñu si ñun ñu mën a yor suñu yëfu bopp loolu la ñuy ñaan quoi képp ku ñu si mën a jàppale rek nga jàppal parce que tamit métier bi doon na métier boo xamante ni lu ñu xam la ñun waaw parce que ñu ngi siy bëgg a yàgg ñii ñëpp ñoo leen formé te ñu ngi nii tey di liggéey pavage waaw bëri na ñi nga xamante ni si ñëwuñu sax mën nañ métier bi mais ñàkk am fu ñu xëy moo tax ñëwuñu quoi mais suñu woon loolu ñoom di leen gis fii quoi waaw moo tax ñun képp ku ñu mën a jàppale rek nga jàppale ñu quoi liggéey bi jëm kanam quoi waaw suñu njiit Macky Sall waaw ñu ngi koy appel moom it mu jox si si si chantier yu mag yi rek comme ñun moom bëgguñ nga xamante ni bëgguñ def loo xamante ni si du yoon quoi waaw chantier yu mag comme ñun doomu réew mi la ñun te fii lañ nekk te xam métier bii nii te mën nañ ko waaw lu ñuy wax mooy mu def la tout jàppale ñu waaw ñu ñaan audience nag mu wooñu waaw jàppale ñu jox si marché yu mag yi ñu ñu mën a avancer quoi waaw loolu loolu loolu moo ñu manqué jàppale bi moo ñu manqué mais techniquement bi mi ngi fi te tamit lépp ngi fi daal xam-xam beeg lépp mi ngi fi mais bëggoon nañ dem ñu recevoir ñu parce que ñun doomu réew mi lañ parce que lu ñuy def nii defaluñ ko kenn suñu réew lañ ko defal boo xoolee jàppale seen yi si gox bi yëpp ku nekk gis sa bopp waaw gën naa appel quoi. ñoo ko déggandoo ñoo ko gisandoo mbokk yi safoo di seetaan seen chaîne bi di Public SN TV mbégte ak bànneex la woon ak contentement bu rëy ci émission mbedd bi tey nag Liberté 6 lañ nekkoon comme nu mu leen ko waxee woon ci début bi dañoo ñëwoon pour ànd ak ndaw ñi ak ñi pour waxtaan ak ñoom Mame Mbaye Niang rappel bi nga xam ne def na ko ci njiitu Pastef bii di Ousmane Sonko pour saisir li nga xam ne moo di këram ñu leen di jox di daje ba beneen yoon ci beneen thème incha allah ak beneen gox merci à bientôt dëkk bi kenn ñemewul wax ñëpp dañoo ragal parce que dañuy bañ ñu tëj leen ci yàlla

Daldi di bus cloche bi lolou moy tax vidéo bu ñu ngeen ko Public SNTV TV bi moy rien que la vérité Public SNTV de grec